ni ko pour que voilà maa nekk suñ kanam mën a saf dëgg bu baax quoi. koy <laughs> <laughs> dina ci am solo mais sa gis-gis par rapport ñi nga xamante ne tey jii mm-hmm. ay citoyens lañu di mm-hmm. marche seen marche ku mel ñoom Guy Marius gën a gën a mën a peut-être euh, message. Mm-hmm. Euh, président gën a jël conscience que ni askan bi sonn nañ ci cherté dund bi. mais ñu jàpp leen fu mu nekk nii fële ci commissariat bu Guédiawaye. ah bon waaw loolu moom maa ngi koy yëg nii quoi. Mm. ma ne loolu moom maa ngi koy soog a yëg ñuy ah mais gi xam naa gars yi ko bàyyi si kanam tuuti rek xam naa dañuy bàyyi ba ker gi sedd rek gars yi bàyyi ko mu génn quoi <laughs> mais yaa ngi ñaanal seke daal ñu ñu wàññi dund bi waaw ñu ngi ñaan loolu quoi ñu ngi ñaan loolu le président de la république monsieur Macky Sall mm-hmm. te xam nañ ne du yàgg dara aussi donc am nañ ci yaakaar que affaire yi dina wàññeeku mm-hmm. insha allahu rabbi quoi mm-hmm. uh-huh. ñëpp am nañ ci yaakaar mais comme je l'ai dit yow du ma la sonal bu baax ci actualité parce xam naa ni Euh, tu es très sport. Mm. Euh, ñu dugg nag euh, gën a xóotal waxtaan bi. ci sa carrière mais man bëgg naa balaa ñuy jëm fu sore. Mm-hmm. ñu laaj la pourquoi vraiment nga am amoureux def lii di sport de la plage à savoir le beach soccer parce que mu nekk sport bu nga xamante ni nag Sénégal mun naa ne ñu bëre teeluñu ko woon trop découvrir wala bokk tàmmaluñu ko woon seen bopp. Mm-hmm. pourquoi vraiment le choix nga tànn sport boobu pour def ko muy sa discipline. waaw man xam nga foot à 11 donc man bi ñu may sélectionné beach soccer donc boobu maa ngi cadet union sportive de Wakam USO nga xam ne foofu la joué sama carrière yëpp cadet junior senior donc en 2007 boobu maa ngi am 17 ans donc bi Chita njëkkee ñëw di ma wax affaire beach soccer yooyu noonu xam nga dafa ma fekk ma toog si basang mu ne ma nax am nga passeport mhm. donc Euh, dañu war a dem jouer ji coupe d' Afrique beach soccer parce que du man lañ choisiroon mhm. donc ñoom góol bi ñu choisiroon aussi donc dafa amoon problème bu passeport mhm. donc Chita aussi dégg ne euh, gardien wu ASC Jakaarlo bu Wakaam mhm. donc euh, gardien bi aay na quoi après si lañ ñëwee laaj ma ndax am naa passeport ma ne ko waaw mu ne ma indil ma ko parce que dañu war a dem coupe d' Afrique dans une semaine xaw ma deux semaines beach soccer la ñu war ma ne ko lan mooy beach soccer mu ne ma noo demee lundi bi na nga ñëw entraînement boo ñëwee bu ñu la expliqué di nga comprendre quoi boobu maa ngi xam 17 ans li may wax ni mhm. ma ne ko am problème lundi bi nag ma dem entraînement euh, naa ne une semaine euh, neuf jours defe naa la ñu entraîné après ñu dem Afrique du Sud mhm. donc bi ñu demee mën naa ne foofu laa jàngee règlement bi mhm. donc foofu laa jàngee règlement bi si Bitcheka bi donc boobu def ma dekk ma dem nekk meilleur gardien Mm-hmm. aussi bi may soog a ñëw à l'âge de 17 ans dañ ne woon du ma jouer quoi parce que mm-hmm. période boobu noonu dañ ne woon beach soccer ko amul 18 ans doo ko jouer mm-hmm. donc ma déplacé woo nationale ma dem ba foofu après waa beach soccer worldwide ak yooyu ne comme xale la aussi te jóge na def na déplacement Sénégal ba Afrique du Sud aussi te 17 ans la am bien vrai que warul mën a jouer mais moom na doon exception quoi vu que xale la donc ñu bàyyi ma ma ñu autorisé ma nag si ma ñëw nag jël meilleur goal xam nga sama première participation xaw moon sax règlement bi yàlla def ma ñëw jël meilleur goal 2007 donc mu nekk euh, suma première compétition mhm. en même temps maa ngi doon joué cadet union sportive de Wakam mhm. léegi nag ma ñu war a demaat Brésil coupe du mhm. de Janeiro ma ko doon alterner damay jóge fii entraînement matin bi di dem fële entraînement soir bi donc noonu laa ko doon alterner di ko alterner noonu ba 2013 2013 nag presque mën naa ne si laa bàyyi foot à 11 bi noonu après parce que après dama dem États-Unis en 2013 donc parce que boobu maa ngi woon union sportive de Wakam. Mhm. après ay quelques problèmes ak euh, union sportive de Wakam. Mhm. donc ma bàyyi leen fi équipe bi aussi donc dem parce que boobu defe naa toog naa quatre ans yoo xamante ne ni maa nekkoon ci banc union sportive de Wakam. Mhm. donc nekkoon euh, relais wu Pape donc 2011 jël naa champion du Sénégal. defoon naa ay quelques matchs yooyu ak union sportive de Wakam aussi. donc euh, comme ni ñu koy waxee après 2013 nag si laa dem États-Unis mhm. def fa 6 mois. Mhm. defoon naa fa sax ay test si benn club Columbus. Mhm. mais comme aw moon bac aussi. ñoom ñu ne boo amul bac doo mën a waaw mën a. intégré affaire yi noonu ma ne waaye fii moom xam naa ne. <laughs> du baax Moodu Moodu laa fi nar nekkee. te gëm naa ne sport bi war naa si mën a am dara. après nag si laa ñibbisewaat. après nag euh, nekk nag si bit soccer bi quoi après nag daw ma si foot à 11 bi dama nekk si beach soccer bi. di entraîner xam nga di gérer am na ñu bëri doon nañ ma nga topp beach soccer bi amul benn njariñ mhm. te bien vrai que au début dafa metti woon parce que da ngay dem jógee coupe d'Afrique doo ñëw doo yor dara xam nga mhm. donc ñu nekk si rek gëm ne ne peut-être que un jour viendra dina mës a baax mhm. xam nga ñu topp si di liggéey pour le Sénégal et kaay ma wax la j'ai sacrifié un visa de dix ans États-Unis ah pour l'équipe nationale du Sénégal équipe bi dafa war a fay kon donc sacrifié naa visa donc euh, euh, sama visa dix ans mu ngi jeex mhm. euh, décembre si la jeexee mhm. donc waroon naa dem bu yàgg mais Ngala l'entraîneur aussi mhm. moom si ñi ma fi téye si la bokk aussi mais je pense que aussi regretté ko donc ñi ma bokkaloon ñi ma amandoo woon visa États-Unis yëpp waaw donc ñi ma amandooloon visa États-Unis ñëpp tey ñoom ñëpp ñu ngi États-Unis di moodu moodu comme mm. xam nga voilà mm. yàlla aussi mu ngi leen teral mais ku nekk aussi ak sa wërsëg comme ni ñu koy donc man ma continuer toog fii donc di pousser di pousser équipe bi xam nga mm-hmm. donc di sacrifier wu pour euh, pour le Sénégal aussi mm-hmm. donc budget ko boobu kenn xamu ko woon mm-hmm. ñoo ñu topp si di liggéey di liggéey di liggéey ba yàlla di def nii ba 2021 bi nii voilà donc du ma ne ñëpp xam nañ ko mais au moins donc. 50 pour cent waaw 60 pour cent léegi xam nañ beach soccer bi donc mhm. jaratul ñu leen koy présenter. Mhm. donc loolu mission boo xamante nii. aussi le fait que nga nekk capitaine équipe bi qu'est-ce te fait. waaw le fait que aussi ma nekk capitaine euh, parce que aussi Ngalla moo nekkoon capitaine. Mhm. parce que man beach soccer lépp fii la ma fekk 2007. ba 2021. masuma tardé compétition. donc compétition yëpp presque Asmal Gueye moo nekkoon capitaine 2007 2000 en 2007 Mamadou Diallo moo nekkoon capitaine. d'accord en 2008 Asmal Gueye moo nekkoon capitaine. Mhm. en 2011 euh, Cheikh Sidiba moo nekkoon capitaine. d'accord 2013 ba 2015. Mhm. Ngala Sylla moo nekkoon capitaine mooy entraîneur bi nii. Mhm. donc à partir de 2016 ba tey nag man maay capitaine. parce que Ngala bu mu raccroché. Euh, man lañ jox capitaine bi quoi de 2016 ba léegi nii maay capitaine. donc boo xasee ba nekk capitaine moom xam nga doo abandonné navire bi quoi. Mm-hmm. donc lu ti ñëw danga koy dékku ànd ak moom booy sacrifier yu bari moo tax ma sacrifier visa bu 10 ans. Mm-hmm. xam nga macha allah donc lépp pour Sénégal ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy consommateurs ñun également ñu ngi la ciy sant bu baax parce que amaana mm. xëj na euh, boo sacrifié wul woon loolu du ñu mun a découvrir euh, talent bi nga am. Mm-hmm. te ci sport bi la. Mm. Euh, sama beneen question Alseny nag ñu jëmale ko ci mondial bi ngeen jógee. Mm-hmm. tey ji avec un peu de recul ban bilan lañ mun a tiré ci mondial bi ngeen jógee te ngeen jël ci li nga xamante ni ngeen dem ci bi demi-finale pour une waaw bilan bi je pense que c'est satisfaisant. pourquoi waaw parce que bi ñu ba léegi bon euh, à quatre-vingt-dix pour cent ay félicitations ay jàmbaar ngeen la ñu ëpp li dégg bokk. Mm. donc bien vrai que du ñàkk dina am ñoo xamante ne dinañ kii tuuti mënu si ñàkk quoi parce que ñëpp a nañu àndandoo si benn affaire. parce que sénégalais moom xam nga rek dafay bëgg quoi. Mm. parce que aussi y de la place pour ñu dem ba final. Mm. ba ma war a jël coupe parce que nit ñi éliminé aussi donc voilà donc koy waxee bi ñuy jógee fii dañu amoon benn objectif. boo xamante ne nii dañ ko fixé woon. parce que depuis 2007 ba 2021 équipe ma masul atteindre demi-finale. Mhm. coupe du monde. donc ñu ne objectif yi moom. quel que soit alpha donc quart de finale moom. Mhm. donc ren bëgguñu ko sax dégg. Mhm. au moins dinañ jéem a def benn pas mooy jéem dugg sur le carré d'as. donc yàlla def ñu si nekk si di si entraîner lu métti. daj ci ay coono yu métti pour atteindre objectif boobu. donc euh, yàlla sutura ñu ba atteindre nañ objectif boobu. te yombul woon le Portugal bi nga xamante ne mooy tenant du titre nga xamante ne presque mënoon nañ ne suñu bête noire la presque fu mu ñu fekk gagné ñu parce que mhm. mhm. Portugal chaque kii mu éliminé ñu mhm. donc ñu bokk moom ak Uruguay ak Oman donc ñu ne Portugal mooy favori ci poule bi donc ñëpp nanguloon ko ko parce que tenant du titre mënu fa mënoo moom poule nekk favori donc yàlla def ñu ñëw suñu premier match aussi gagné Uruguay avec la manière ñëw suñu deuxième match mu waroon nekk suñu qualification quart de finale ñu joué avec la manière